ne sunu sëriñ moo to jabal te mi ngi daaru kenn la moo fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko ci moom ndax mel ni moom lu jafe la. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre Ndayane Vision ñi ngi fii ci Darou Mouhty di am mbégte bu baax a baax ci bisub maam Thierno Birahim di loxol ndeyjooru Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. tey jii nag euh, di bisub maam Thierno Birahim euh, euh, waa Daaru ti ak li ko wër lépp ak diwaanu Sénégal di fàttaliku jëmm jooju nga xam ni moo àndoon ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon rakku Serigne Touba waaye mu jaayoon lépp jënd ko ak taalibe tey jii nag ñu ñëw fii ci dëkk bu tedd bi nga xam ni mooy Daaru Muxti ànd ak Ndayane Vision ñëw fii ngir li nga xam ne moo fi ruuse ñu leen koy digtal mbokk yi ki nga xam ne moom la ñu ko tey muy maam Thierno Birahim xam ngeen ne mook Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñoo bokk lépp Euh, kenn ku ne xam ne ne bi maam Thierno Birahim euh, bi Serigne Touba dem ci tukki bu mag boobu boobule moom la dénkoon njaboot gi euh, dénk ko taalibe yi ba ba xam nañu ne ni maam Thierno Birahim Serigne Touba ñibbisee dégguwul fenn foo xam ne Serigne Touba laaj na ko fa njaboot gi te te bi Serigne Touba demee képp koo xam ne tolloon nga ci jàng Serigne Touba jàngal na la maam Thierno Birahim jàngal na la lépp lu motoon na def mu def ko ci jamono yu doy waar nag. ndax su ne la maam Cerno Birahim koo dénkoon ci njaboot gi da nga ko da koo dénk am li mu ko fi bàyyil ak matériel yu demee noonu waaye mu nekk ci jamono ju doy waar ndax xam ngeen ne Serigne ci ci ci euh, niñ ko yóbboo ci tukki bi ndax wax na bind nañ ci at archive national wax ne bokk nañ ci tax ñu échec ci demuk euh, euh, Serigne Touba gi dem gën dem yóbbu Serigne Touba bàyyi fi maam Cerno Birahim ñu wax tam ni lépp loo xam ni maanaam Serigne Touba mi ngi ko doon def bi mu demee maam Cerno Birahim doon na ko def tey jii nag ñu am mbégte ñëw fii ci résidence euh, Mame Thierno Birahim euh, fekk fi euh, Moustapha Guèye mii nga xam ni maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy accueil presse bi ñu ñëw fekk ko fi Moustapha ginnaaw bu la nuyoo la ñu ngi sàkku ay kàddu yoo xam ne maanaam lan nga ñu indi solos bi si bu noppee ñu door a ñëw ci maanaam maanaam accueil presse bi ak seen taxawaay ak maanaam maanaam fi ngeen ci toll. Mhm. kon Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax ci Ndayane Vision. Mhm. jërëjëf Serigne Cheikh ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm. Mhm. di sant mbokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy bàyyi xel te di ñu teewlu ci Ndayane Vision euh, ci euh, organe bu mag bii nga xam ni kenn ku ne ràññee na seen taxawaay ci lislaam ak euh, liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ak yaatal njàngale mag ñi ñi ngi lay nuyu di la ziar bu baax di am mbégte di sant yàlla bu baax ci bis bu tedd bii nga xam ni moom nga nu fekk tey ji muy bisu borom daarul moxti mel na ni ginnaaw nuyoo ak ziyaare yi lépp dañ koy jël teg ko ci loxoom Cheikh Mamadou Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi ñaanal Serigne Abbas suñu borom yàggal ko fi lool te maandoo ko wér ñaanal Serigne Moustapha Absa suñu borom euh, guddal fanam te wéral cëram bis bi nag bis la boo xam ni njabootu borom daarul moxti ñoo koy taxawal di ci fàttaliku lu yàgg-yàgg loo xam ni danañu ci dugg ci biir incha allahu rabbi xam naa ni nga ko waxee su fekkee dañuy njëkkee liggéey bi nu yor ci muy wàllu accueil presse bi ak wàllu communication comme euh, bats bi nga xam ni moom la ñu yor muy lépp loo xam ne jëm na ci tasaare euh, lépp lu jëm ci wàllu màggal gi ngir nit ñi man cee jariñoo ndax borom daaru léppam ngëneel la léppam la ñu a jàng loo ci bëgg ci ñaar yooyu rek njëkkee ko léegi xam naa comme euh, nit ñaa ngi ñu seetaan fu nekk ci àddina mm-hmm. euh, te am na ci ñoo xam ne xam naa ne xam nañu maam Thierno Birahim waaye xam xam naa ne xam ñu dëgg-dëgg liggéeyu maam Thierno Birahim mm-hmm. moo tax bëgg nga xamal ñu kan mooy maam Thierno Birahim mm-hmm. waaw d'abord kan mooy maam Thierno su ko defee ki nga xam ne mi ngi koy dégg kan mooy lan nga ñu ci mën a baaxee ci ci ci solos bi euh, sëñ Moustapha jërëjëf Euh, Serigne Cheikh ñu ngi lay sant ndax li nga wax dafa am solo bala ñuy ñëw ci dara war nañoo ñëw ci ki tax ñu daje. lan moo tax ñu tànnal ko bis bii ñu di fi daje. ndax euh, nee nañu jote boo gis joote da koy jiitu borom daarul moxti mooy lépp ci Serigne Touba Cheikhul Khadim dama koy tàmbalee ci feeñu jamonoom. ci ak tënk ba keroog ñu yegsi ci màggal gi. feeñu jamonoom bu ko defee ca biir yow yaa xam lépp loo ci bëgg a leerlu. comme ni nga koy defee yéen journalistes yi animateurs yi. ñu mën koo leerlu. beneen bi ci des mooy borom daarul ti ñaan gu nangu la goo xam ni jàmbaara ko ñaan euh, ndax euh, euh, sëriñ Mamoor Anta Sali la mu wax sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim booba at yi bëriwut sëriñ Tuubaa bi mu feeñ jamono toll ci at yu néew la tàmbale di di di di jaamu yàlla di taxaw naafi la guddi ba bët set yàlla def yoon woowu mu teel a jël ak ñi mu bëgg a dimbalee nit ñi am na lu mu bëgg a taxawal waaye amagut ku ko ci jàppale ci kun kun bari lool mu wër fu nekk ci réew mi bala xas bëgg a génn réew mi jàngi way juróom nit ku baax la woon di nitu yàlla boo déggee ñu naan xaali mamorante sel yi mooy doon kat bu mag ba atte nag bala nga koo def da ngay ëpp xam-xam ñi ngay atte ngir mën leen a teg recadrer tegaat leen ci yoon mamorante sel looloo ko yóbbu Mbàkke Kajoor bi la joor nekkee deqale looloo ko yóbbu Poroxaan bi ba Jaxu nekkee euh, ñooro ak yu bëree baree bari moo yoroon atte mu xool doomam xam ni am na objectif bu mu ci diine am ci lislaam mu ni ko nag dama bëgg ngay génn di jàngi nga taaxeeru lii soxna Faty Isseu Diop àndal bu dee góor nga xam ni moo lay jàppale ci liggéey bi nga bëgg a waaye bu dee jigéen nit ku baax nga ku fi yàlla jaarale kom ñaneen ñi jiitu woon waaye waroo taxawal dara waroo feeñal dara ba nu demee ba ca fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu yamook 1862 bisub alxamis da ngay dégg si Musaa Ka naan yoor yoor di alxamis la feeñ fa poroxaan yoor yoor di alxamis la tab bi fil jinaan keroog ba nga xamee ni feeñ na mel na ni la ko Maam Mor Anta Sali waxoon Maam Mor Anta Sali dafa feddaliwaat sëñ Moussa ko way na ko moom mi werekaanu Bamba keroog la Maam Mor Anta naa Seex Bamba sa ñaan nga nangu na ki lay yor yan ba kon bi mu feeñee rek sëriñ Maam Mor Anta Sali xam na ni doomam ji dana am lu mu lu mu représenté ci ci ci ci ci lislaam xam na ni doom ji dina bokk ci ëllëg ñi ni bàyyi xel waaye nag loolu mi ngi ko amee ci feeñu jamono borom daaru Muxti foofu liñ fiy tënk mooy borom daaru bu amul woon yoonu murid du am borom daaru ci noonu la ànd ak Serigne Touba Serigne Touba ko defal lépp bis ba mu juddoo ba tàkku ser baatam ba Seex Bamba daw njëkkante ko baayam ba nga xam ni Serigne Touba moo njëkk mamorante seli ci ci doomam ji di Seex Ibra Faati lu ne ci moom moo ko ci moo ko ci def moo ko bind lay toqantal moo ko jàngal alxuraan Bamba ko jàngal alxuraan ak xam-xam Bamba ko yar yor ko ci waxtu si xarité mosul tàggoog moom li waxtul ki bari mooy moo ko jàngal ci waxtu ndaw mosul tàggoog moom ba keroog muy doon mag waaye foofu la ma ko cay tëjee mooy euh, Cheikh Ibra Faty bi muy ànd ak Serigne Touba Cheikhul Khadim boobu Khadimu Rasul amut Serigne bu mag bi amut borom jumaa ji amut borom jàkkee géej gi amut boobu Ahmadou Bamba moo xam ni xamuñu ndax ñaari nit doon ko toppam déet moo xam ni xamuñu ndax dana taxawal yoonu murit itam déet moo xam ni booba ñëpp ñi ngi naan dofub Serigne moo Anta Sali bi booba la ko jox boppam te moonte ñoo bokk baay ñoo bokk ndey seen ñaari maama bokk benn baay fa Mbàkke ñoom it ñu dellu bokk benn baay am barke Ahmadou Soxna Bousso génn góor la moo jur soxna ab sa Mbàkke mu jur soxna Faati Si mu jur Ceerno Ahmadou Soxna Bousso moo jur soxna sa Waalo mu jur soxna Jaara mu jur euh, Xaadimu Rasuul te ñoo bokk ñoom ñaar so Serigne Mamadou Sène mu mel ni mu mel ni Serigne Moustapha tubaarkàlla ni nga xam ne noonu nga ko leerale ci ci ci ci ci gan feeñu ko euh, maam Thierno Birahim ak mm. boole gi nga xam ne mam Anta Sali euh, di seen waajur woon na leen ko mm. mu mel ne Serigne Moustapha njàngale maam Thierno Birahim tey jii boo ko doon teg ndaw ñu bëree bëree bëri mën nañ cee jariñu mhm. euh, li mu liggéey ci wàllum économie mhm, mhm. li mu liggéey ci xam-xam ak ak itam maanaam nga bokk ak nit ki wenn waajur nangul ko topp ko loolu mu mel ne tey jii bu ko nit doon teg maanaam nit ñi dañ mën nañ cee mën nañ cee jariñu lu bëree bëri suñu Moustapha ci loolu waaw waaw euh, muy lu am solo borom daaru boo xoolee ci ci côté yëpp mën nañ cee roy ndax euh, tey bu ma àndoon ak yow di liggéeyal yàlla def barke dab nu nit ñëw ma mag ko ñu bokk waajur ñun ñëpp nga sàcc dëkk jox ko mayee dëkk seexali nit ci sama kanam tama njëkk ànd ak yow bu maa dina ñoroon na damaa gis sama bopp mbaa ma opposé wu 86 1886 la jël Daaru Salaam bi mu ko sancee la ko booleeg juróom-ñeent fukki dong ak juróom-ñeent jox ko seexanta Anta moom te Thierno na Thierno Birahim ma ko féete mag maam Thierno Birahim xam ni moom li mu wut ci Serigne Touba bokkut ak loolu ndax ku ci nekk li nga am ci Serigne Touba la lay la lay jox te Cheikh Anta doon jàmbaar yi Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bi mu ko ko joxee ci kanamu maam Thierno Birahim boole ko téeméeri dongo ak Cheikh Anta maam Thierno Birahim ni teg ba ñu demee ba 1912 ginnaaw ba mu ko sancee lay dëkk yu bëree bëri sancal na ko euh, Mbacké baari Jolof sancal na ko Touba gii Serigne euh, maam Thierno Birahim ko sanc waaye xoolal ba mu jox rakk ja dëkk ba dëkk ba weesoo naa gent am na jàkka am nay donga waaye bi mu sancaloo Ceerno Birahim ab leetar la ko jox ni ko duggal ci àll bi boo demee barab sàngam la bu dëkk tuddee ko Daaru mu sëñ Tuubaa mosu fee teg tànkam ci zahir kon kon bu doon kuy découragé ngir nit ki nit ñi war a am patience war a lépp looy wut da nga koy koy xaar waaw waaye boole ko gëm-gëm waaw buntu bi yiw arab yi dañuy wax ni boo fa taxawee boo fëggee dangay ngay taaxeerlu ki lay ubbi sil ñëw nga doog a mën a ubbi maam Ceerno Birahim dafa toog ci Serigne Touba xaar fa lépp liggéey li ma la waxoon sànq nag ba muy liggéeyal Serigne Touba Ahmadou Bamba Sall la tudd mbooloo topp ko kon kooku bu mbooloo ñëweet du yàq dara ci doxinam ak taxawinam kon war nañ koo mën a roy ci wàllu taaxeerlu lu baax boo koy wut Serigne Cheikh. jërëjëf Serigne Moustapha ci leeral yooyu am na solo mu mel na itam am na ci ñoo xam ne ñi ngi fu ne ci ci ci ci àddina ñuy dégg màggalu Daaru ci ndax euh, xamuñu ne maanaam euh, maanaam dañuy dañuy dañuy màggal euh, feeñu jamono wala dañuy màggal bi Serigne bi maam Thierno Birahim génne àddina loolu bëgg na nga indi ñu ci ak leeral ndax ñi nga xam ñi ngi dégg te xamuñu jërëjëf Serigne Cheikh mel na nag laaj boobu ñoo ngi tàbbi ci màggal gi nag ndax boo xoolee ñoom ñaar li ñu ànd Euh, lépp dara da ci du sëñ sëñ sëñ Moussa wax na ko nee na Serigne Touba boo doon Moussa maam Thierno Birahim mooy sam aaroona seeni mbir ak yoo yëla mbir nuroo na boo doon Moussa muy sam aaroona yoon wa mu aw ak wa ñooña aw sore na boo xoolee yonent yàlla Moussa làmmiñ yu leerul woon mu ñaan yàlla mu def rakkam ab yonent bi mu ko defee ab yonent muy tukki tukki 40 jours dénk ko njaboot gi ba mu ñëwee daa fekk ñëpp xàcc ñii di jaamuy nag ñii di jaamuy xërëm ban jàppante téere baat te rakkam la woon Cheikh Ahmadou Bamba 1895 la génn ci tukki bi juróom-ñetti at yu manqué mu dénk Serigne Touba yoon wi bàyyeewu koy dépasse xam nga bu mën a dénkoon sama kër rek leen lay dépasse sax léeg-léeg am ay yu sew bàyyee ko mbo njaboot gi ba muy dem Serigne mu Moustapha juróom-ñaari at la am maam Thierno Birahima ko dalal jàng mu mokkal fi alxuraan bindub kaamil ñu jox ko euh, Ablaye Ndour mu yóbbul ko Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci biir géej gi bi mu am juróomi at booba ma nga ma ca garab ga ca gabon ba mu doon wax naan bàyyeextuhoo taxta sajjara booba sëriñ Tuubaa ngi foofa falo kaamilu sëñ Modou Moustapha fekk waaye ci biir tukki boobu nag juróom-ñetti at yu manqué ba mu dellusee le retour de exil mooy bisu màggal gi fi ne boo xoolee 18 safar mooy bisu dem ba waaye fukki fan ak juróom ci saabaan mooy bi bisu ñëw bi ñoom ñaar ñoo séq tukki bi tey jii dafa am ay ngëneel yu bari yu ci feeñ bis ni ki tey la sëriñ Tuubaa gisee ak rakkam ju baax ji Cheikh Ibra Fati 1902. su gaaw la wàcc ci waax bi ci ndakaaru jël saxaar sëñ Issa Diène ngi ci biir bi mu tollu ndànd la ne ko wàccal nga dem Daaru naan wool ma Cerno Birahim altine la maam Cerno Birahim ñëw ndax bi ñu yëgee ni Sëriñ Tuubaa woo na ko fu mu jaar murid yi génn mel ni kuy teertu président xam ne mi ngi wuy daje ak magam ju baax ja Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim keroog ba mu ñëwee wax nañu ni tisbaar tàkkusaan timis ba gee dañuy waxtaan ba waxtu jot rek ñu julli ko bañ mujj Sëriñ Tuubaa ci ngërëm ja mu ni ko ndax bu fekkoon yaa dem ma des ci njaboot gi nii nga leen téye danaa ko man yaakaaruma ko kon loolu ngërëm lay tekki ni ko la ma la cee fayee nag sama yoon wi bu demoon bay des ñaar mam cern bi daam kenn ki ci yow lay bokk loolu moo doonoon tukki bi waaye tey boo xoolee euh, beneen ngëneel da cee am fukki fan ak juróom ci saxabaat bu du woon ak borom daal dañ ko war a màggal boo xoolee euh, kaabatu rasul képp kuy julli moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay jublu penku la ñuy jublu waaye ñi féete penku màkka bu ñu jublu bu ñu julli soowu la jublu kaaba gi la ñëpp jublu bis fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan lañ am ndigal ci sunu borom subhaanahu wa taala tàmbalee jublu kaaba gi kon loolu bis la woon boo xam ne ci bisi barkeelu yi la na sunu sëriñ moo te zabalta mi ngi daaru kenn la maa fi tuuti ay yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko ci moom ndax mel ni moom lu jafe la waaye Thierno Birahim ñëw nag defaat konu yéeme ci biir màggal gi 1943 euh, la ñu ko tàmbalee màggal borom daaru dafa feeñ 43 dafa dafa nelaw 43 44 Cheikh Mamadou Awa Balla di ko def ak ñaan nga xam ni bisub génn àddina borom daaru la ni la ni